maa ngi tudd Doudou Sonko di président de la coordination des étudiants euh, thiessois de Dakar euh, di am contentement bu baax di am mbégte aussi tey dalal ki nga xamante ne mooy docteur Sarr ci Grand Dakar ci immeuble étudiant thiessois yi immeuble bi nga xamante ne tey lansam ensemble des étudiants thiessois yi nga xamante ne ñu ngi à Cheikh Anta Diop ak dans les écoles de formation fi lañ nek ñu fi doon nak dund nak vraiment ben crise mu doon lo xamante situation bu doy war la bu jéggi dayo parce que buñu togué euh, fi nga xamante ne tey jii nii ay euh, quarante quarantaine cinquantaine ay étudiants ñoo fi nek dëkk fi amuñu fuñu dem amuñu ben parent Dakaru amuñu fi papa amuñu fi yaay tumuranke lool ñu tok bañuy ñuy wala bañuy waja waaj ñu tok ñu couper ñu ndox di dund situation yu lolu de ki nga xamante tay tey docteur sar def déplacement dérangement ak temps ni mu séeree ak tay ji ni ñu ni ñu ko xamee ak dayom ak programme am ni mu chargé mu def sacrifice bi yépp ñew sét suñu kon mënuñu def lu vraiment content, content, nañ trop euh, té franchement aussi tamit euh, tubab day wax né la façon de donner vaut mieux ce que l'on donne donc tay ji ni du rek jappalé bi jappalé

té tamit docteur sar aussi tamit lu défé li doon na loo xamante l'union parce que tey jii nii ay mbirum dafa leer nañ ci population thiessoise bi ñëpp xam nañ ne il est au service de la population té tey jii ku wax politique xam ne ni la politique c'est l'art de bien gérer la cité kon tey jii nii lii day doon lo xamante vraiment vraiment fay dalal suñu suñu suñu xel de lancer walé un appel solennel à l'endroit des concerné ñi nga xamante ne tey jii nii nii ñu ngi Thiès nekk tey jii soit ay acteurs politiques soit nekk ay bonne volonté ñuy roy si lu mel nii parce que euh, yaakaar naa ne docteur Sarr euh, dafa ñëw rek emprunté même dynamique bi nga xamante ne am na ñoo xamante ne aussi tamit jaar nañ fi jàppale nañ ñu loolu ci loolu ñu mën see lim ku mel ni tey jii nii ci comme responsable Charles Émile Abdou Ciss muy directeur solde ñu mën ci lim ku mel ni Maodo Malick mbay ñu mën see lim ku mel ni Abdoulaye Dieye tey jii nii aussi tamit ay madame Thiam tey jii euh, ki nga xam ne docteur Sarr ñëw tey jii nii tullanti loolu noonu dalal suñu xel kon franchement mun nañu wax ne tey jii daal vraiment contentement ak mbigte la ñuy am suñu xol vraiment seet na guy te ñu ngi koy ñaanal aussi tamit te di ko wax ne aussi tamit na jàpp que ne tey jii nii nii li mu def. fi ko def nasaxul parce que tey jii ku wax étudiant tey jii ni wax cas social kon donc tey jii nii dimbali na ay ño xamante ño ñu ñu vulnérable lañ té tey jii étudiant bu fi nekk mën na né ne famille nga représenter kon mën na wax ne mu xam ko té xam nako xam na né ay famille la dimbali té kenn ku si nekk tey ni ni euh te suñu ubbi won sa xol duñ ci mëna fekk luddul dul tey contentement donc en grosso modo docteur Saldal chapeau gatché ngaalaama té aussi tamit euh, nous les étudiants aussi tamit vraiment nous sommes euh, aptes et nous sommes aussi tamit prêts à adopter euh, sa vision et sa démarche politique parce que c'est est politique politique defar la politique tey moi nii mooy fexe euh, jàppale population bi à l'abri du besoin kon vraiment dans li si kanam raw li bët ambition c'est au niveau de Thiès mënuñu nous vraiment tamit vraiment am reconnaissance si si moom ci acte bi nga xamantene def nako à notre endroit à quoi faisant moy accompagner ko pour une collaboration sincère et franche. voilà tay dama ñëwoon à Dakar seet ci samay jeunes frères samay jarbaat samay dom étudiants yi nga xamni ni ñoo nekk Dakar te deuk Thiès nekk fi ki dalal ma le président Sonko muy président de l'association des étudiants thiessois à Dakar ici mom ak étudiants yi mu andal ak étudiantes yi ñu ñëw dalal ma fi ñu waxtaan vraiment échanger. ñu wax ñi seen i jafe-jafe wax ñu ci li ñu nekk donc loolu daal tey moom moo taxoon tey ma ñëw fii parce que ay doomu Thiès lañu bu ma amee école am na étudiants yoo xam ne ñi ngi fii Grand Dakar yor seen bi am di dund ay jafe-jafe réflexe bi ma njëkk a bi may war njëkk am moom mooy ñëw xool ñoom ci lan la ñu nekk ci nan la ñuy dundee looloo taxoon tey ma ñëw fii et vraiment j'ai été content parce que waxtaan nañu ils ont on a parlé ñun ñëpp waxtaan nañu à bon cœur ouvert que ci nekk wax nga li nekk ci yow. ñom wax nañu li dund dund sans gêne man tamit wax lima ci jafé euh, ba paré ba orientation pour pour l'avenir pour pour dans le futur nous mëna doxale pour situation yi donc damay profiter ci de tamit pour lancer un appel vraiment aux autorités étatiques de Thiès euh, collectivités locales conseils conseil département les mairies... ...pour appuyer vraiment les étudiants parce que les étudiants les appuyer c'est appuyer le pays parce que nous sommes les futurs cadres de ce pays c'est les futurs présidents de la République c'est les futurs ministres c'est les futurs directeurs c'est les futurs chefs d'entreprise c'est les futurs professeurs donc nous, il faut les appuyer il faut vraiment veiller à qu'ils soient dans de très bonnes conditions pour que Sénégal mën leen utiliser demain à bon escient Lolo lolo waralon sama ñëw bi tay fi Grand Dakar ci immeuble bi donc bima safonté ak ñom ba pare xamna naa seen jafé amna lo am na tamit jël nako appuyer leen ci en attendant en attendant tamit yeneen ceesuwaay yi nga xamni euh, dina ñëw ñoom appuyer leen man sama wàllu bop fima ko wara waxé dina dem wax ko fa def plaidoyer fofu pour ñom pour que ñu euh, ndimbal tamit mën di ñew ci ñom quoi pour que ñu nekk dans de très bonnes conditions en tout cas maa ngi leen di féliciter ci courage bi ñu am parce que li c'est pas facile nga nekk euh, ci kër go xamni par exemple dañ lay menacer d'expulsion ba paré amoo ndox suñu sama jigéen ñi sama doomi ñom ñoy ñooy premier ba quatrième étage pour yégué ndox lolu wax deug yalla metti na metti na metti na metti na motax vraiment maa ngi leen di encourager bu baax di leen féliciter di leen wax ni li c'est de passage rek daf leen di jangal aduna donc di ngeen ko weesu dinañ dem ba nga xamni luñu netti lay doon donc ngeen muñu rek góorgóorlu ba paré di travailler dans l'unité ngeen def bloc gor ak jigen pour que ngeen mëna affronter bép problème bo xamni ñëw na ñëw na seen kaw en tout cas man man je suis en phase avec vous et je suis euh, vraiment votre partenaire euh, sachez que à chaque fois que vous aurez besoin de moi moi je serai là à vos côtés pour vous soutenir voilà merci beaucoup